hippa dama newoon keroog may bind article ma ne leen déclaration de patrimoine boo ko siiwalul amul njëri ndax yow ak of nak kese la mais pap man suma xamee ni yaa moom kër gi jëppal soo defee sa déclaration patrimoine dañu ne ku nekk bépp citoyen sénégalais mun nga dénoncer soo dugalee say kër yëpp te dugaloo sa këru jëppal bi pap man citoyen ma bind of nag ne leen man am naa firnde yu wóor ni pap mii moom moom këru jëppal bii ni numéro tel tel tel pour que bu gaa yi demee xool ci këyit yi ne la kon yow fausse déclaration nga def pap xam nga lu tax ñu war a déclarer lépp am na loo xam boo ko déclaré wul heure boy genn mën nga ne da nga jënd kër gi fekk jënd ko fekk si sa patrimoine lo bokkoon mais pap sa patrimoine mo wara tax tamit ñu lay tek impôt pap ki am 20 kër lu muy fay impôt ak ki man mi am puxasu néeg du ben motax déclaration de patrimoine dafa wara sincère gaay xamni yow sa alal dafa jéggi dayo wala yow amoo dara boo amulee dara nag ñu fol la cinq nga am lu jéggi dayo loolu nag enrichissement illicite day dugg